mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jàllal jàmm bu baax a baax ci seen télévision Equivox TV eh, ci seen biir émission Vox Arena eh, ngeen gis ni émission Vox Arena eh, yëngu na ci làmb ba daal di labellisé wu ñu daal di tëgg li nga xamante ne moom mooy làmb làmb bi nga xamante ne moom la ñu njëkk tëgg nag mooy Franc ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 maa ngi promoteur bi nga xamante ne moom moo ko taxawal jiite structure bii di Vox Arena ñu naan ko euh, Alioune Badara Diouf moom laa bëgg a dalal ñu waxtaan tuuti. salaamaaleykum Alioune Badara. waaleykum salaam Cheikh Omar. maa lay ziar bu baax. waaw di la ziar yow tamit di ziar waa axlu lamb yëpp. Euh, yàlla def nii euh, li nga xamante ne moom mooy Vox Arena di émission wu lamb. ma ko doon anime ak ñeneen ren ngeen xalaat walla ñu xaatandoo ne. dañuy dugg ci làmb ji comme promoteur yow mi nga xamante ne yaa jiite euh, loolu di structure bi xalaat boobu nu mu ñëwee. waaw bon fi may démarrer d'abord euh, damay nuyu sénégalais yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi tourné ci làmb ji euh, plus particulièrement mbër yi promoteurs yi ak ñi nga xam ne ñooy amateurs làmb yi ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax donc di wax na rek Equivox quand même euh, Equivox benn maison de production audiovisuelle la euh, boo xam ne dafay yëngu ci information cest à li ñuy wax une telle thématique waaw di yëngu ci secteur yu bari léegi ci biir loolu ñu am ci benn euh, émission boo xam ne Vox Arena lañ ko tuddee Vox Arena di yëngu ci làmb kii di activité sport ci Sénégal lamb moo ci gën a fës donc ñuy dem di liggéey di ci liggéey ba am ci taxawaay boo xam ne vraiment euh, mun naa wax ne axlu lamb bi yëpp xam nañ ñu donc Vox Arena euh, foofu nag la idée bi ñëwee ñu ne pourquoi pas ñu dugg ci événement événementiel comme ni ma la ko waxee événement événementiel moom ah ci secteur sport lamb da cee gën a fës euh, si loolu lañ xalaatee ah ñu ne pourquoi pas ñu monter ay affiche comme que ay ndaw lañ euh, te ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne vraiment liggéey bu mucc ayib ci milieu làmb ba ñëpp xam ko noonu la idée bi ñëwee ñu ne nañ dugg ci làmb ji à travers euh, groupe Equivox bi ak label box Arena ñu utiliser label bi euh, pour tëgg ay combat noonu la mbir mi demee. ñu gis ni dañoo ñëw tag nga daal di ñëw ak combat bu doy waar. ñu ne bëreet nga indil ñu Tyson 2 ak Franc mu nekk ñaar ñoo xamante ne lamb ji boobu léegi ñu ngi koy coow Tyson a raw Ty euh, Franc mu ngi doog a jóg walla mais loolu noonu ngeen daal di ko ngeen daal di ko taxawal mën nga loo wax tuuti combat boobu nan ngeen ko xalaatee ba taxawal. waaw xam nga lamb moom coow la lamb ku ko xam-xam ne coow la coow da ca bëri euh, léegi nag euh, bu ñu nekkee ay ndaw. yoo xam ne dañ bëgg a dem ci kaw bëgg liggéey loo xam ne lu day waar lay doon ci wàllu làmb euh, comme ni ma koy faral di waxee ah euh, Equivox ñun ne cherchons pas à se faire remarquer dans le milieu mais plutôt à faire toujours des choses remarquables léegi nag boo defee des choses remarquables nag dañ lay remarquer et pour nga mën a réussir loolu il faut nga choisir aussi ñi ngay àndal pour def ko mu nekk ñoo xam ne ay jeunes lañ yu mën a bëre yoo xam ne liñ def ci làmb ji kenn du ko lam-lamee ba pare am mbooloo seen gannaaw ñu fas yéene nag liggéey ak ñoom ànd ak ñoom màgg léegi nag loolu booy xalaat il faut sa xal mënul bañ a dem ci ñu mel noonu noonu la euh, xalaat bi demee ci ñoom bon vraiment ñu dox ko ci suuf ah ba yàlla dimbali ñu ñu mën a fisale combat boobu taxawal ko voilà. Euh, dox bi nu mu demee yaa ngi doog a ñëw ci làmb en tant que promoteur gars yi métti woon na méttiwul woon euh, démarche bi ndax euh, jafewul woon. non mënul woon a jafe trop. parce que ñoom comprendre nañ ne ñun ay jeunes lañ ñoom tam ñu nekk ay jeunes ñu nekk de la même génération. donc ñun aussi suñu projet bi ñu ko ficelee ba baax ba tegal leen ko ñoom projet boobu mën nañ ci gis seen bopp ñun tamit mu nekk projet boo xam ne mën nañ ci gis suñu bopp donc léegi nag suñu waree ànd màgg. ñoom bu leen wóoree ne ñii ay jeunes lañ te dañu ambitionné liggéey lu bare ci làmb ji te yàlla mën na def suñu liggéey ba a yem ci combat bi ñu dem ba vraiment yegg ak ñoom foo xam ne dina weesu seen njoot donc loolu day tax négociation bi du mën a jafe trop ay jeunes lañ ay jeunes lañu donc dañuy ànd rek ak ñoom ñu dem quoi loolu loolu moo xaw a faciliter tuuti euh, suñu négociation ak ñoom voilà. Euh, cachet bi cher na cherul euh, mën nga ñoo wax cachet mbër yi waaw waaw xam nga loolu nag côté boobu moom waaw journaliste yi tàmm ngeen di laajte loolu mais euh, pour dugg foofu dafay xaw a compliqué parce que déjà déjà présent que ñun d'accord nañ ak ñoom am nañ accord ah ba ficeler combat bi donc ñoom dañuy nekk employeur euh, ñun dañuy nekk employeur du moins ñoom ñu nekk employé te employé nag doo toog di divulguer salaire am en public donc loolu moom xam nga duñ mën a xuus foofu xaj na yow mbër mi moom boo demee ci moom nga laaj ko moom ñaata lañ ko fay moom su ko wax il libre moom mu jox la wax wax la moom ñaata lañ ko fay mais ñun quand même bon jugé wuñ nécessaire ñun ñu toog ci plateau di wax effectivement lan lañ fay mbëri voilà. très bien euh, ñu gis ni aussi euh, euh, ndax wala ndax yéen a ngi ci yeneen affiche yoo xamante ne yéen a ngi ci wala benn journée bii ngeen bëgg ñamagum comme yéen a ngi doog a dugg ci làmb. non xam nga comme que ñun ay gan lañ. bon ñu ngi doog a dugg ci làmb euh, mënuñu démarrer ak un combat par exemple de choc moo tax ñu démarrer bii nii nga xam ne combat de choc la mais quand am na combat yu ko gën a rëy mais ñu jàpp suñ démarrer ci bi ah bëgg nañ ci saison bi di ñëw ñu taxawal ci quatre journée wala cinq journées lu ko ëpp sax waaw euh, ñu ngi démarché ñu ngi démarché ay mbër suñu xel am na ci ay mbër yu mu dem. comme ni ma la ko waxee rek dañ bëgg a révolutionner làmb ji indi lu bees loolu soo ko bëggee def dafa am ñoo xam ne ñoom nga ciy àndal waaw ñu nekk ay mbër yoo xam ne mbooloo dafa nekk seen gannaaw ah nga xam ne buñ signé ak ñoom partenariat boo xam ne ku nekk dina ci gis boppam je pense que mun nañ liggéey lu rëy ci làmb ji waaw loolu moom mun naa leen ko assurer. en tout cas indi ngeen benn komba boo xamante ne mu ngi créer problème ci réew mi ñi naan combat bu compliqué la euh, ki nga xamante ne moom mooy Franc ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson ci combat yi ngay dox benn rek laa ci bëgg a xam ndax yaa ngi dox benn combat ñamal ma ci benn rek. waaw combat yi ñu bëgg a dox moom fi ñu toll nii combat bi nekk suñu priorité. intéressé ñu trop mooy combat Reug Reug waaw ñu ngi koy dox ñu ngi koy dox parce que combat boobu daal mooy suñu mooy suñu principal cible fi ñu toll nii voilà bëgg nañ taxawal combat boobu ci saison bi di ñëw. waaw parce que ñooñu combat boobu. amateur yi dañ ko soxla ñëpp a bëgg combat boobu mu nekk combat boo xam ne boo déggee ñu naan combat de choc boobu moo tax ay ndaw lañ mën nañ bëre am nañ doxle mbooloo mu ngi seen gannaaw donc combat boobu day doon loo xam ne dafay ñëw révolutionnaire làmb ji indi ci lu doy waar moo tax suñu xalaat yow foofu la dem. mais am na yeneen yu nekk ci suuf. waaw am na yeneen yu nekk ci suuf yu ñuy dox waaw vraiment daal comme ni ma la ko waxee rek bëgg nañ teg dix journée sax suñ ko mënoon dañ koy def. voilà. d'accord am na euh, promoteur bu bees nga am na ay promoteur yoo xamante ne ñu ngi fi déjà euh, Pape Abdou jiite ñëpp ñi nga xam euh, bon Pape du Fall moo jiite les promoteurs en activité laxaat tamit mu ngi fii alors ndax jokkoo nga ak ki nga xamante ne moom mooy Pape Abdou. waaw waaw jokkoo nañ ak Pape Abdou Fall bon xamal ko ne ko ah ñun ñëw nañ. ñu ngi si seen gannaaw ñoom anciens yi ah ñu bokk yoon wi rek ah liggéey bi rafet. te xam naa ne ñoom dinañ ñu yaatal dinañ ñu ah euh, wan yoon wi ñu ànd ak ñoom liggéey vraiment def loo xam ne ni lu mucc ab lay doon ci làmb ji. yaa ngi may wax ni yaa ngi doon jokkoo ak Abdou Lahad. waaw aussi euh, jokkoo nañ ak moom moom tamit vraiment accueillir nañu waxtaan nañ ak moom ci charte yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee ci làmb ji et je pense que euh, suñu yéene aussi nekk na woo tous les promoteurs bon waxtaan ak ñoom waa xamal leen ne ñëw nañ. pour indi suñu pierre à l'édifice vraiment liggéey bi gën a rafet ah ñëpp suñuy frère lañ suñuy ñi suñuy tonton lañ bon ñu ànd ak ñoom liggéey liggéey bi voilà. ma bañ a jël euh, xam naa yàkkamti nga lool dama laa njatt sax dama laa fekk ci yoon euh, ma bàyyi la nga tàggatoo looy wax waa Ahlou Lamb pour terminer. waaw xam nga waaw soo nekkee ci euh, yu mel nii. voilà surtout que pour un début quand même du c'est du yomb contact yi day bëri appels yi fii xam nga ñëpp dañuy bëgg a am information bëgg a jël ay interview et tout ça mais sant yàlla rek ah, di ñaan yàlla defal ñu jàmm ba yéene bi ñu am yëpp ñu mën ko yeggali euh, te du am benn jafe-jafe voilà donc di wax waa làmb ji yëpp ne leen bon euh, ma ne leen salaamaaleykum ah ñun ñëw nañ ci làmb ji vraiment euh, bëgg indi loo xam ne ni lu bees la waaw lu bees lañ bëgg a indi révolutionner làmb yóbbu làmb foo xam ne nii vraiment beneen touche lañ ci bëgg a indi et pour loolu nag ñu réussir ko bon je pense que ñëpp war nañ ñu ah ah bàyyi xel puis li gën a euh, suñu plan de communication ñun incha allah je pense que dinañ ci def loo xam ne lu lu lu am solo lay doon parce que yàlla dimbal nañu li nga xam ne nii mm, promoteurs yi dañ koy wuti ñun yàlla dimbal nañu ci loolu lañ démarré. mooy créer suñu benn télévision web TV ah am suñu plateforme de diffusion ba pare nag à travers notre label Vox Arena bi nga xam ne yàgg na liggéey ci làmb ji bañ am ci tuuti expérience ak liñ jot a gestu ñu soog a songo làmb ji donc ñu ngi ñaan ñëpp daal vraiment ah, ñu ànd liggéey liggéey bi ci ni mu gën a rafetee ak ci ni mu gën a baaxee lépp nekk ndami Sénégal ah, ñu jàppale mbër yi nga xam ne ni vraiment ñu ngi entraîné ah bëgg ñu tëggal leen ay combat je pense que ñun ñëpp entre suñu waxtaanee yoon bi yaatu na jàppalante rek donc mën nañ vraiment dimbali ndaw yi ba ku nekk gis sa bopp ci làmb ji waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf